maa ngi leen di delloo ziar. bon euh, tey fii ci Djidah Thiaroye Kaw nga nekk fi benn icône nekk ka nga xam ne ràññeeku na lool si li doon def. Mhm. nekk ka nga xam ne wax dëgg neex yàlla royukaay la. Mhm. waaw vraiment dama koy dama koy rafetlu ah d'abord euh, fi ñu ko def la mooy fi nga xam ne mooy suma gox mun naa ne def naa fi presque soixante cinquante quelque année parce que ñun gis naa ne bi ñu jógee tali bu mag. fii daal la xam nekk fi ak voilà till yeeg bukki yeeg ba léegi gis nga fii ni mu mel léegi nekk na devenu c'est devenu maintenant une grande métropole loolu ñun ñëpp dañ koy rafetlu bu ñu jëlee centre bu mel nii nag daal mu koy tuddee bon c'était une grosse surprise pour moi parce que li may li ma li ma li ma fiy jaar di romb yëpp maa ngi dégg rumeur yi tout ça mais je ne m'attendais pas à trouver une situation comme sa mais loolu kon dama koy rafetlu di ci féliciter di ci remercier Cheikh voilà pour la confiance qu'il a mis pour mettre sama tur à la disposition de ce centre sportif mu nekk un centre boo xam ne ce sera pour tout le monde donc euh, lu baax la surtout que ñun boo xoolee ñun suñu secteur bi fii amul industrie amul li mu am lépp mooy c'est le volet sportif. bokk na ci ay c'est des ressources yoo xam ni yoo xam ni war nañ ko mën a exploiter et eh bien mieux pour le quartier tant mieux pour la jeunesse tant mieux pour tout le monde donc dama koy rafet rafetlu daal vraiment daal maa ngi koy lu bu baax ko soxna si ñu ngi lay ziar. tur sant bi. man Ramatoulaye Camara. Camara. tey sa papa Abdoulaye Kama nekk ancien international ñu tuddee ko lii di. Euh, ñu bëgg ko tuddee. ñu bëgg ko tuddee lii di salle salle d' espoir bi nekk si ginnaaw lan lay ah vraiment affaire bi moom kontaan nañ ci trop wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ ci kontaan parce que il le mérite bien parce que wax dëgg yàlla def na si Sénégal lu rëy loo xamante ne il le mérite vraiment wax dëgg yàlla mérito na ko mérito na sax lu ëpp loolu. si geste bi Cheikh parce que fii na ñu ngi ko waroon tuddee mais tuddeewu leen ko choisir sa papa. waaw euh, geste bu nice la wax dëgg yàlla tonton Cheikh Dieng geste bu mu def geste bu nice la wax dëgg yàlla ñun ñëpp kontaan nañ ci waaw famille bi ñëpp ci kontaan euh, famille sportif ñëpp ci kontaan waa quartier bi ñëpp ci kontaan affaire bi dégg naa euh, j'espère que moom ku ko dégg moom wax dëgg yàlla kontaan nga ci wax dëgg yàlla di nga ci kontaan trop trop trop.